الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf xafidahu llahu taala wa raahu wa ayadahu wa zaada min nasrihi di ñaan mu yàgg fi te ànd ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam suñ borom may ko kàttan ak ba lépp mu àggale ko mu kaw njortam kon lii ñu def lépp ndigale ma yéene ma taxawaay ma kon doonu ci dara lu weesu rek defal nga def yemal fii nga yem fii kon cant gépp dañ koy delloo ci moom ndax liggéey bii nga xam ne mooy liggéey bu mag bii nga xam ne ni nga ko doon def ci turu mu waram comité organisation bi yëpp nag mboolem taalibe Serigne Touba yëpp dañuy yëkkatiwaatu cant ko jëmale ci moom ndax Sëriñ Tuubaa bokk na ci lim fàggul taalibe yi ci liggéey bi mu di liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy képp ku fagee ko mati sëkk kon nag moom ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak biir ndax mboolem li ñuy séentu ci moom rek weesu na ko ci faru diggam ak boroom li ëpp solo mooy foo ko séen rek mu delloo ci yàlla te loolu mooy li jiitu ci li ñuy doyee kilifa amul jën yitte àdduna dëddu na lépp dama ko waxoon keroog dëgmal boromam dëgmal Serigne Touba lu du liggéeyee Serigne tubaab yi du itteem lu du jaamu yàlla du itteem kon dañuy ñaan mu yàgg fi ànd ak ndax taxawaayam mate na ko sëkk liggéey bi itam di liggéeyu màgg gi yàlla def na ba mu duggee ci suñu loxo ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu jëloon ko def ko jëwriñ ji keroog ba ñu taxawal comité organisation bi yàlla def na moo ñëwaloon boppam waxoon ci kàddu yu rëy ya mu ci waxoon kenn du ko fàtte mooy la mu waxoon ne bu ma ko mënoon sax damay topp seen ginnaaw di di di leen liggéeyal kon sëriñ bi liggéey bi fu mu àgg rek cant gi dañ koy tàmbalee ci moom ndax ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké joxe ndigal da ko ànd ak ñun taxawuñu ci ba bari na ci ñoo xam ne sax moo leen tàbbal ci liggéey bi benn ci Serigne seex mi danaa koy fàttali waxtu ne ak ñu bëree bëri ñoo xam ne ci kilifa yoon yi rawat na ci waa majlisu suuraa bi moo leen jox ndigal ne leen ànd leen moom te jàppale ko kon moom muus see génne loxoom ba mu nekkee ci loxoom itam lépp dañu ko bàyyi bi fi si Sidi Mokhtar mbakki nekkee itam seen diggante ñëpp xawoon nañ ko mu jël lépp teg ko ci loxoom. waaye mu jëlaat lépp bàyyiwaat mu ko teg ko ci sama loxo ci doyloo bi mu doonee Serigne Touba itam fu mu ko fekkoon rek da ko yokk gën koo dëgëral sàmm ko waxtu bu nekk loolu la may fetli li ma bëgg de mooy dëgëral ak sàmm la te loolu mi ngi koy dox suñu digg moom kon dañ koy sant di ñaan Serigne Touba mi nga xam ne li muy jëf lépp moo tax yàlla na ko fay di gërëm nag mboolem ñi saqaloon liggéey bi yëpp tàmbalee ci waa majlis suura bi. ba agsi ci waa comité organisation bi ci njiitalu Serigne Ousmane euh, tudd ñi ngi sant comi commission yëpp bayuñ kenn kenn ku ci ne la la war ci liggéey bi def nga ko ci rafetal waxoon naa kon jëru del si waat euh, waxtaan yi ngeen fi waxtaan yi itam lépp ni ko sëñ Saam leeral léegi lépp ay wax la yu rafet li sëriñ Ousmane wax li Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne mooy yor kirtil ak communication wax li nga xam ne euh, Serigne Abdou Ahad Ka mi jiite commune Touba wax na ko ak li nga xam ne professeur li mu géey ak ñi mu àndal wax nañ ko yëpp ak ba Serigne Moussa Moussa mu yor wàllu ndox mi kenn ku ci ne la mu wax wax ja leer na kon jëru del si wat kon jataay bi di ko waral mooy jataayu sant yàlla sant yàlla ak sant Serigne Touba ndax bis bii kat bisub day bisub cant te sant kat dara gënu ko màgg ci alxuraan moo tax ma ubbee aay bi ma ubbee ndax boo delloo ci alxuraan suñ borom wax na ko fu baree bare bare cant nag la ci jiitu mooy cantu cantu xol mooy bi wa maa bikum min ni'matin fa minallah ak cantu làmmiñ mooy la in shakartum la azidannakum ba ca des mooy cantu jëf i'malu ala daawuda shukran waaye nag dégg ngeen daje suñu borom teg wax xaliilun min ibaadiya shakuur kon sant lu jëfe la seytaane bi nga xamee ne suñu borom dàkku na ko ba génne ko bokk na ci lam sartante moom summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala ak aktharahum sakirin loolu nag moo tax alxuraan boo fa demee walakin akthar annaasi lu bari bari na ca walakin aktharuhum la yashkurun kon sant yàlla lu jafe la boo demee ci alxuraan itam dana fa bari lool foo xam ne da ngay dégg suñ borom bi ci wax ne qul man yunajjikum min zulumaati albarri walbahri tad'uunahu tadarruhan wa xufyatan mooy li taalib yi def la in anjaytanaa min haasihi lanakuunanna min ash-shaakiriin mu ne qul illaahi yunjikum minhaa wa min kulli kaabin summa antum tushrikuun kon day mel ne sant gi bu amul rek shirka day dugg Serigne Touba nag ci biir fàggu gi ñu fàggu nga xam ne lépp da ko fàgguwale moo tax ba muy nekk ca tukkeem bu tedd ba ci wala xad karam naa dégg nga mu wax ne yashirru juuxi li Touba waxmini waqini azal wara wal tutib lii zamma iskana azal wara ji mbas mi tàbbi na ci biir waaye lam ci tekaat laka chama wal aradi wal mu ubira musharikin kon nga xam ne daanaka boo santul rek dugg nga ci sirke waaye lépp suñ suñ fagguwaale nañ ko ndax suñ borom dafa wax ne bàkkaar bu mu mën a doon rek dinaa ko jéggal ba mu des bokkaale moo tax Serigne Touba bokk na ci lim gën a tàgge ci taalibe yi mooy tawhid moo tax xasaa itam yëpp ci tawhid la ko delloo kon nag dañuy sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba euh, Cheikh Mahoudou Mountakha itam wane na sëkk ne mat nam Serigne ndax ku fi nekkee Serigne kat fàttali naa ko ba tàyyi du samay wax waxi Cheikh Abdoul Ahad da ko wax ju gudd la dafa wax ne Serigne ci biir bi muy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da cee fàgguwaale xutbaaniye gi du génnati ak njabootam mu ne nag sëriñtuwaa nag ba mu xamee ne amul ñaar amul ñett tamit te lim yor di leen te mënu ko jox kii bàyyi ki dafa jël lépp dajale ko ci waxande mu jël waxande ba nag. lépp lu mu am mu def ko ci biir jël ceeb ji teg ko ci loxol ki mag njaboot gépp kenn mënta àgg ca waxee te jaaroo ci ki mag waaye moom itam sañut kenn ñëw laaj ko mu joxule ci ndax seen àll li bàyyi di ci biir mu ne jataay boo nag balaa caa kenn toog danañ la peese ak bindeef yi ba nga waddee ñu la fa teg buñ la peese ak bindeef yi te watoo leen nag ñu dooleel la ba nga mat ko ñu la fa teg mu ne boobaa nag lépp loo xam ne euh, balaa la buy wàcc balaa wàcc ci kaw suuf danga cee yanu ba diis ba doy ba doyal sëkk mu door wàcc ci bindéef bi naka noonu itam lépp loo xam ne aw yiw la balaa wàcc ci kaw suuf dana agsi ca kaw nga jël ci ba fees mu door wàcc ci loola nag lii fii jataay bi toll Cheikh Mouhamadou Mountakha wane na ko ci lu bare bare ndax ñoom dañuy gis lu agsiwut te loolu lañuy ñuy kilifa kilifa donc day xam loo xamut moo tax dañuy wax ne boo nekkee ci sa kanawu sëriñ da ngaa war a mën ne kal mayiti bay na yedeel xaasili yi mooy da nga ko topp nit ki nga xam ne am néew koo koy sàng fu mu ko jëmale mu jëm fa moo tax it wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin alayhi fii ma xatahu wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaar ndax loolu damay fàttali moom bi yii wàcc ci àdduna wàcce mboolem li nga xam ne suñ borom da ko santaane ndax naa inna naa lahu fil ardi wa ataynaahu min kulli shay'in sababan kon loolu suñ borom ko digle ci alxuraan mboolem luy sabab ya daa santaane na ko ñëpp def ngir wane ci aw yoon te diglewu ko it bàyyi waaye da caa jiitu lam ci war a def mu def ko ca waaye itam li nga xam ne mooy ndigalu suñ borom bi nag da koo jiital loolu itam suñ borom far na ko ci ba ci màggal gi itam ba mu santaanee ne ne xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu Serigne nag la ci siyaay ba fàtte waxoon rek ci kër gi la ko waxe woon ci Darou Minane gi Serigne Touba du ma sant mukk lu ma dul def te du santaane mukk lu loolu nag taalib yëpp jëfe nañ ko wane ne Serigne Touba du santaane mukk lu am te du ma sant mukk lu ma dul def foofu la taalibe Serigne Touba yëpp nekkoon roy ci seen jëwriñ kon. loolu itam du Mouhamadou Mountakha bi nga xamee ne li xew lépp lu mu ci mas def ñii lif àdduna si na mu ko waxalee boppam da cee dégg ñoom yàlla def na man seere laa ci ba ma yónnee ci ki jiite réew mi président Macky Sall di ko xamal màggal gi yéen jëm ci am ak li mu ci bëgg lan ma wax mooy te wax naa ko ci télé bi ñëpp dégg ko yaakaar naa ku arrière bandi da nga ko ci fekk nee ko li ma ko ciy fay mooy na xelam dal jàmm rekk ci am. kon nag yey na ñëpp kon nag wanee na ne lam doon wax ci yaqin la ko teg waaye nag tegoon na ci wax ju solo ci biir ba barki démb rek waxaat na ko ba nit ñi njëkkee ñëw di ko wax nekk Touba de dañoo sedd ne jàngoro ji jeex na fi wàññiku ko na mooy loolu nekkul ci suñ ginnaaw suñ kanam la ne Sëñ Tuubaa noppi na ci lañ ko bàyyi ci loxo waaye nag mbirum mbirum baatin nag du lu ñu fooyee du lu ñu bàkkoo itam kon lu ñuy sant Sëriñ Tuubaa waaye du lu ñu bàkkoo kon loolu itam sëriñ bi da koy wax ci ak wéet lu bëree bëri nee na mbirum baatin du lu ñuy fooye du lu ñuy caaxaan mbirum Sëriñ Tuubaa lañ ko bàyyi moom waaye nag du lu ñu bàkkoo kon ñun li ñu war bàkkuñ dañuy sant te euh, Sëriñ Tuubaa dafa alxuwaan dafa wax ni ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis moo tax sëriñ bi lépp lu ngeen dégg mu wax ko ci ak may digg ma borom foofu la ko teg xultu wa xasdiya taxaddusum bi ma lii xaadahu wala yuri nii niqama kon ñoom dañuy xam lu ak siwut waaye lii ko sëriñ Touba sagale ci kënamu àdduna wane na ne sëriñ Touba tey la fi gën a ne sëriñ am sori jaxat daana ko wax nee na kuy nattab ne sëriñ Touba nekkatu fi kon booba amul dara ci basiratu waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha yaqin ji mu amoon ne jàmm rek xew wane na ko ndax ñi nga xam ne ñooy wàllu adduna gi wane nañ ko wax nañ ne màggal gisuñ benn jeexit mu am ci jàngoro kon nag loolu nañ ko sant yàlla te sante ko Serigne Touba te bañ koo bàkkoo Cheikh Mouhamadou Moustapha nag waxoon na soxna Maymunatu ne ko may Maymuna lépp lu la yàlla defal ci sa biiri nawle na nga ko sant yàlla te bu leen ko woon boobaa yàlla doo koy gën a yokk kon nag ñun nag li ñu Serigne Touba defal ci biir adduna laay wax ndax njabootu Serigne Touba dafa yaatu adduna sépp la ne te Serigne tubaa xartalul mbiram képp ku ko sopp rek tàbbi nga ci biiram kon ñu itam nañ ko ko nañ ko sante yàlla sante ko Serigne Touba damañ ko bàkkoo boobaa kat tawféex rek lañu jural te xam ne Serigne Touba njabootam dafa yaatu te moom wax bind na ne. li may ñaanal jullit yi nga xam ne aju nañ ci man laay ñaanal jullit yi aju yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man boo demee ci rabbi bi may show rabbi bi may show yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin irham jami al wara loolu fii la ko taarife woon ci daaru manaat gi ñu nekk tey kon moom yërmaandeem wa rahmati wasi'at kulla shay'in kon Sëriñ Tuubaa mbir ma xatul eh, dafa yaatu kon na ko ñëpp yaatale euh, kon lii lii nag loolu lañ ci mën a jàng mooy gën a góor góorlu mu gën a yokk yaqin suñu digg suñu Tuubaa te xam ne mbirum Sëriñ Tuubaa nag ni ma ko waxoon nag lépp xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne boo doon dàkk sam xel wala les gi di jox du bokk ak ngay gis ndax ñoom ci seenee nattuwaay li waxoon mooy bu bu bu nit ñi buñ dajee wàllante bi dana bari kon bu ñu xëyoon ay téeméer nit mu leen di dal itam dañuy jàpp ne loolu mooy li war a am waaye nag lii xar baax la xar baax xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne ba baaxuñ koo gis moo tax am na kilifa bu baax gu daa wax ne mbirum Sëriñ Tuubaa lépp day xar baax xar baax nag boo ko bëggee xam danga koy jaarale fur bu baax kon gën a sant yàlla bu baax rek te wattandiku itam la Serigne Touba mu joon a wax ca ndigalam yu mujj Cheikh mm-hmm. Mouhamadou Mountakha bokk na ci li mu gën a wax ne nañ ko fàttali nit ñi Serigne dafa santaane ca waxtaan ya mujj wax ci njariñ na ngeen fexe fexe ba li dal diggante nasaraan yi ak yahuud yi bu mu leen dal mooy waxaalatil yahuudu laysati nasara ala cheyin waxaalati nasara laysati yahuudu ala cheyin te loolu gis nañ ne mi ngi bëgg xew ci jamono mooy jullit yi xeexante ci seen biir wala ñuy mel lu wujjante te ñoo xam ne ñoo bokk fu ñu jëm la wax bu dee dëgg ci ñoom la leen juyeel bariwut ndax la ëpp ci ponk yi ñoo ci bokk dëppoo bokkuñ nag ay yoon yu njaar ngir àgg ci yàlla loolu jërul xëccoo jërul waxante lu ñaaw jërul boddikonte ndax loolu ay yàqari la jur te Serigne Touba wax na ko fu baree bari laaj yi ñu ko laaj yëpp itam tontu ya mooy julli yëpp ak njabootam lañ daana ko wax Serigne Souhaïbou bu laa ko déggee daa wax ne day xëcc bu xóot nag muy wax ci tudd ci yenn ci nit yàlla yi di wax ne ñëwee ci moom ba mu nekkee ci géej gi am kenn nitu yàlla ku tudd ne ko de ku yéeme la nitu yàlla dëgg la ndax ba muy jébbuli ci man de ci ak ngeer la ma fekk ci géej gi daa daa dagg boppam joxe ak nitu yàlla daane moo tax nag bëgguma kenn ku bokk ci yoon muru ku leen di wax dara ndax ñi ci ëpp seen seenu njaboot ñëw nañu si ba jébbal ma ne kon sama njaboot lañ Sëriñ Tuubaa kon yaata xatalutoon bi doon da ko kon nag nañ ci góor góor bu baax te xam ne sëriñ Saliou ndax suñ borom dafa wax ci alxuraan walaw shaa rabbuka la na amana man fil ardi kulluhum jami'an Serigne Saliou nag am na lu fi ma sa xew ci juyoo yi daa am ci biir weer yi bañ dikkee ba wax ba noppi mooy leen li ngeen wax lépp de lu baax la na ñun de ci ngeen ñu fekkoon waaye nag damaa am tuuti lu ma leen di jàngale mooy xadis ba dafa wax ne ixtilaafu ummati rahma wajtimaa wa sunna sama xeetu bu ñu wutee rek yërmaande suñu borom la daañu la yërmaande googu yërmaande suñu borom jooju di wàcc ci ñoom nag mëtu leen a dawale kon nañ xam ne ay juyoo bu amee ci yu mel noonu itam nañ ko jàppee noonu rek jàpp ne du yàq dara kenn ku ci ne la nga na nga gise jàpp ne moo gën a jub ci saw yoon rek na la ko ñëpp warmaala te sàmmule la ko ndax xul kullun yaamalu ala ko mu rabbukum huwa ahlamu bi man huwa ahda sabila am na ci saxaaba yu ko daa wax ne ra'yi sababun yaxtamilu xata wa ra'yu xayri xataun yaxtamilu sabab kon nekk ci dëgg man nekkoo ci dëgg loolu bàyyiwuñu fi ku ne na seet la dalam xelam yaakaaram ne ca mu mu mu mu dëgmal ko jëm ca te yaakaar ci mbaari irmaani suñ borom taxaw na suñ borom képp mooy atti jaam yi waaye moroom jaamu da atti moroom jaamu loolu nag sëriñ bi mu koy fàttali ñëpp di sant ñëpp nag di ndokkee ñëpp nag ci weeru tedd yi di weeru gàmm gi nga xam ne sëriñ Tuubaa fonkoon na ko lool daana wax ne euh, sama ñaari pàkk yi ci sama ñaari weer yi lu ko waa yan rek ko sëriñ Saliou daana ko nettali sama ñaari pàkk yi ci sama ñaari weer yi mooy weeru gàmm ak weeru koor ñaari pàkk yi mooy Tuubaa njariñ kon nag bu yàlla defee tawfeex ñu dugg ci weer gàmm bi nañ xam ni ko sëriñ bi fonke ndax bu masaan ak si moo weeru koor lépp lu mu daa def rek da koy yokkaat lu ko waa laaj mu jox la ko ne ko da ne da nga koy waajale sama gan gu tëdd kon loolu rek mooy li ci am solo te xam ne taalibe yi Sëriñ Tuubaa faggul leen lépp lu mat a ñaan yaa rabbi ishaalil muridina maa fii xisnikal xasini wa chamlaj maa kon àndandoo gi ñu àndandoo bokk boo boole seen lépp Sëriñ Tuubaa leen ko fagul Cheikh Mamadou Farid Mbacké daane firi ne al jamaatu rahma mu ne mbooloo mu ànd bokk yéene bokk bëgg bëgg bokki pexe lu ñu jéem ko loolu moo am ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi ndax ren jii kat xam ngeen fi àdduna toll waaye Sëriñ Tuubaa wane na ci xar baax xar baax yi mooy ñëpp ñëw nañ yàlla aar na leen ci jàngo bañ delluwaat ci jàmm kon loolu xar baax féetewu kaw jamono xadd na ci àdduna sépp nekk ci kiris ñëpp maase nañ ci xam ne bañ nee suba la màggal gi aw nag wala xar desatul ci dëkk bi te loolu mos am loolu itam wan ne xar baaxu Sëriñ Tuubaa kon Sëriñ foo ko natt weesu na kon li ci des mooy gën a góorgóorlu gën a feddli suñu laxasaay gën a feddli suñu pastéef te xam ne Sëriñ lépp loo xam ne ñaan ko suñu borom suñu borom may na ko ko te lii ñu sa itam wane na ko nekkul loo xam ne lu ñu natt cim xel la. wala lu lu ñuy gént wala lu ñuy xalaat day waaqi amal muus ñëpp ci teg seen bët ñëpp xam na ne li xew xar baax la xar baax nag Serigne Touba ñoo ko faggu Serigne Touba xéwalu yàlla la ne ko Cheikh Sidiye waxe woon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suñ borom kenn mënta lim xéwal yi ñu defal kon nag dañ ko sant bu baax te gën a góoru te sax ci ay ndigalam tey ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi ànd ak di sant mboolem ñi fi teew ñëpp. seen taxawaay ci màggal gi li ñu waroon def lépp def na ko waa comité organisation bi ni ñu waroon taxaw lépp taxaw na ko ndax xatoon na waaye lu ci ne rek conférence yeeg ndaje yi ñu doon defee kolo colloque yeeg yëpp lu ci ne def nañ ko war nañ ko war a defee benn taxawaay manqué wu ci te lépp pëseef lañ ko defee ak ngëm-ngëm ak xam ne ku ne xam ne sa bopp nga koy defal ku ne xam ne Sëñ Tuubaa di liggéey lii nga xam ne Sëñ Ousmane wax na ko it waxtaanoon nañ ci mooy loole itam ñi ngi ñaan mboolem ñi yëngatu ci dëkk bi eh, loo xam ne luy defar Touba muy état bi ak ñeneen yi ci des ñëpp di ñi nga xam ne ñoom la ko seqal bu weeru màggal gi duggatee rek ñu fexe ba lu ñuy defati bu weeru màggal gi assee ñu fexe ba arrêté ko ndax eh, ji jiñante yi moom matu ko ndax ñëpp lu baax leen tax a eh, kii liggéeyal. sëriñ tubaa ci dëkk bi ngir àdduna ak kii liggéeyee Serigne Touba ngir jëmmi Serigne Touba di ci yaakaar pay Serigne Touba àdduna ak alaxira kon ñëpp ak defaral leen tax jóg kon ji ñaata gi sax wusu la loolu doonul sax loo xam ne lu gën la ndax du ñuy wujj duñu ñu noonu ñoo war a bokk fenn fu ñu mooy muy liggéeyee Serigne Touba Serigne Touba liggéeyam bi fay gi ci loxoom la ne kon loolu moo tax ba ma ko déggee man dama leen jërut wax ndax bu dee ñi jiite réew mi la def siñ bee leen ko sant muy lu leen war ci dëkk bi ñu du ko bu dee waa commune bi ña fa nekk sëñ bee leen fa bàyyi ci ndigalam lañ nekk bu dee waa daayira Touba ci kanam itam dañuy liggéey sëriñ Touba ci dëkk bi ci ndigalu sëriñ bi kon ñoo bokk fenn fu ñu jëm ñu bokk fenn fu jëm nag dañoo war a boole seeni bëgg-bëgg boole seeni pexe boole seeni xalaat te dafa mel ne it Cheikh Mouhamadou Mountakha noonu la ko santaane te bi mu ko santaane ba nëgg ni itam gis naa ne ñu koy sàmmante te loolu itam jàpp naa ne bu ñu ko tàmbalee nii jëm jëme jëme déwén dana ci gis yeneen résultats yu gën a kawe kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn waa mu Moukhaddamatoul Khidma yi ñu ngi leen sant ci seen taxawaay ñoom itam ndax màggal gi leen ni ma leen ko seerale woon keroog rek li leen ci sëñ bi santoon lépp def na ko mboolem daayira yi sant nañ ñëpp ndax limul naa ko bi màggal gi jóg moo tax jërul dellusiwaat te bindu ma ko boo limee da ngay fàtte waaye ku doon jëf rek Sëñ Tuubaa la taxoon di jëf te seere si itam ñun doonu ci dara Sëñ Tuubaa ngeen di seeral li ngeen di jëf te Sëñ Tuubaa teg na ci bitam Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkal Sëñ Tuubaa itam liggéey bépp xam na ko te doy na sëkk kon sant na ñëpp gërëm ñëpp ñu gërëm taalibe Sëñ Tuubaa yi na ma ko waxee woon rek bi ñëw kenn ku ci ne tanaison on mawtu ma rek dañoo mel na lu kuy njëkkante ak dee te xamuñu woon lu leen ci fekk kon ñoom seenu ngëm Sëñ Tuubaa kenn naattableetu ko waaye nag la ma leen waxoon rek maa kaana allaahu liyadara almuminina ala ma antum alayhi xata yamiisa alxabisa min altayibi wa maa kaana allaahu liyudinakum ala alxaybi walakin allaha bi min rusulihi man yasha kon yàlla neen dama leen doon seetlu waaye wanu wanuma leen wane dama leen di seetlu kon Sëriñ Tuubaa itam bu fekkee da ngeen doon natt seenu ngëm wala seen pëstéef seen digg ak na leen wóor seen pëstéef ak seen wane na ne seen pëstéef seen digg ak Sëriñ leer nañ kon loolu moom ñëpp war nañ ca dalu xel ndax ku doon ñëw ku nekk xamoo la la ca doon fekk waaye ndigalu Sëriñ Tuubaa jar na lu ko tey jar na ko it nag ndi jëfi ndigalu Sëriñ Tuubaa jafe jar na lu ko ndax neewoon na xam ngeen ni ma ni may xame li ma leen digal def ngeen ko la déedéet wala def ngeen ko la déedéet ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne waxtu ma sante nit lëf day am du jug ànd ak moom jëfee ndigale mu dëkk moom mu ne bu jëfewu ndigal nag day dellusiwaat ci man di ma xamal ne dem naa waaye awma fu ma ne kon kenn ku ci ne balaa déwén am na am nañ yaqin ci ne kenn ku ci ne jaayante gi nga jaayante woon sa digg Sëriñ Tuubaa da nga ko yëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi